سلي النية إلهي واجزينا أبدا أنا محمدا المختار في القدام وسلي النية إلهي واجزينا أبدا أنا أنا المختار salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk yi fi daje yépp euh, kilifa yi jiital nañ kàddu xam naa dañu yéene woon ci biir thème bi wax dëgg yàlla Sidi Ahmed matal na thème bi ni mu ci yaakaaroon yépp def na ci lu ëpp kawe njort yàlla na ko yàlla fay waaye dañu fi am mbokk yoo xamante ni ñu ngi ci liggéey ci ligue anti tabac fii ci Sénégal muy ñoom euh, professeur wala docteur euh, Sey wala ñi mu àndal dañu waajoon aussi indi seen contribution ñu may leen aussi xëy na ñu indi seen contribution balaa ñun ñuy dem ci li nga xamante ni moom la suñu mbokk yi sant. te muy synthèse final bi ragal naa ni tam du jël trente. xam-xamu toujours dafay indi ñaar doog a sottal maanaam doog a dafay indi li ñu tuddee coût indi li ñu tuddee bénéfice mooy la ngay investir lan nga cay génne. olof yi naan maa ngi jënd fukk di jaay juróom bu yàggee nga daan kii jooy 32 milliards de recette fiscale te di ko weccoog jeunesse bu anticiper yàqu di ko weccoog baisse de productivité maanaam xeet yi les nations bu ñuy xëccoo ñu ngi xëccoo ci li ñu tudde ñaw ci jur koom-koom moom la ñuy wax productivité li tax américains yi am doole boo xoolee seen poids ci population mondial bi cinq pour cent lañu man ëppuñu ko trois cent vingt millions lañu sur six milliards téeméer boo jël ci àdduna bi juróom yi américain lañu téeméer boo jël ci àdduna bi ñaar fukk ak benn yi ay chinois lañu kon chinois yi dëpp américain yi waaye bu ñu jëlee koom-koomu àdduna bi yépp dajale ko téeméer bu àdduna bi génn ci liggéey ñaar fukk ak juróom yi américain yi ñoo ko génne loolu moo tax ñoo ëpp productivité donc ki may ne njiitu réew na dafay dàq 32 milliards recette fiscale te gannaaw ca bénéfice ya ma ngay jur perte kooku analyse am des na heureusement que dem na mais li gën a graaw dama koy yokk ci li ñuy wax ci cigarette suma mbokk daara parce que ci daara ji laa gën a féete sax ndax man nekkoon naa volontaire ci anti tabac am na dëkk yu bari yu ma def pour di ñaax xale yi nekk ci l'école ñu bañ ñu bàyyi tux wala ñu bañ ci dugg ñaar wax nañu fii léegi ci wàllu statistique am na yoo xam ne tudduñu ko bi ci ñett ci gën a grave xam nga ñuy wax jaay sa bopp ci dëkk bi xale yu jigéen yi nga xamante ni ñàkk dugal na leen ci ñuy dem di jaay seen bopp loolu problème la ci réew mi bi ñu defee étude bi dafa am benn corrélation bu ci ne corrélation mooy lii jur la ca des maanaam li tax waa Gorée léegi mën a am mburu lu ëpp lañ ko daan amee ndax léegi rotation chaloupe bi dafa yokku temps de parcours bi wàññeeku loolu mooy corrélation ñuy seet lu tax njaay bopp bi ci xale yu jigéen ñi bari ci dëkk bi ñu di ko gëstu ba ni industrie tabac ni infiltrer xale yu jigéen ñi di ni pour ñu mën seen dañuy corrélation bi donc bu nous xeexee ci xale yu jigéen ñi dana jur ñu propagation prostitution bi benn ñaareel ba mooy industrie tabac nañu chiffre d'affaires 50 milliards de ci 50 milliards boo on doon xool ci budget bi ñuy assemblée nationale mu 3 000 milliards le gouvernement bi di présenté assemblée nationale 50 milliards sur 3 milliards bariwul kon chiffre d'affaires, il y li nga xamante de ñun ñoo nous fay bu ñu ko nous devons maanaam ñu def bu au lieu ñu di ko cigarette loo xamante daf nga faje ko sa mbokk bi feebar wala nga dimbalee ko sa tànte bi dépasse sa matul waxuma la ca ngay yokke sa koom-koomu réew mais ca ngay yokke yow ci sa bopp sa jaamu yàlla donc loolu ay choix la yoo xam xamante ni société daf ko war a def ñun nag comme dañu ñàkk fayda ba Europe lu ñu fa xeex xam nga européens yi léegi yeewu nañu Europe dootoo fa tox bu jëkk da nga daan jël avion ñu ne la siège fumeur wala non fumeur nga tànn ngay dem hôtel ñu ne la chambre fumeur wala non fumeur nga tànn nga jël train ñu ne la siège fumeur wala non fumeur nga tànn loolu amatul Europe léegi partout c'est non fumeur lu tax ndax ndekete mag ña la ñu jàngale woon ca njàlbéen na toll ci trois siècles wala lu ko ëpp ñoom léegi ñu ngi ciy doog a jot sama waajur Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin démb dama ñëw ak Pape Khalifa ci waxtaan rek ñu ne nañu ko ñu woo ko ci jotaay bi jot ko mu wax ñu yéeneem ñu dana ñëw mais ci biir yéene bi dèjà moom jàngal nañu ci li nga xamante ni suma mbokk taal daal di daal mu ngi ko doon wax léegi dafa wax ne du du Seydina Cheikh mu jëkk a tere tóon waaye moo ci jëkk a légiféré moom la mbokk yi wax léegi xam nga tere dafa yomb waaye boo indee loi rek mu am force waaw sa doom bi nga naan bàyyil nàngam wala société bi d'accord ci ni cigarette baaxul te amul loi ku mu neex nga def mais Seydina Cheikh moo ci jëkk a légiféré li tax mu légiféré ci nag loolu moo am solo gis nga moom yàllaa ko may mu jël wal takun minkum ummatun yad'uuna ila al xayr benn wa yamuruuna bil maarufi ñaar wa yanhawna anil munkari ñett wa ulaika humul muflixuuna mu tënk ci waa këram te suñu mam Cheikh Seydil Hadji malik nee liko inspiré bu mu bind ki fayeeku raaxi bi na aaya boobu la moy ñaar fuk ak ñeent ci suratul ci suuratu Ali Imran bo jele fatiha bi dem nasi moy ñettelu ñetteelu suura bi ma juumul boo nee fatiha ni baqara Ali Imran ñaar fuk ak ñeent wal takun wal takun bobu impératif la yàlla daf ne na am ci yéen ñu am fulla bu day taxaw taxaway nek élite ñu posé question élite boobu lan la def mu ne la ñuy jëkk a def mooy yadduuna fu ñu fekk mbaax rallier dugal leen ci mbaax boobu ñu ne tekk mu ne ci boole ya'muruna bil dañuy en plus jëme ci ak ni utilité sociale lo xamni da fay jariñ xex ñu ne jeex na mu ne déedéet wa ya yanhawna anil munkari fu ñu fekk lu bon ba luy tardel rew ba luy delloo ginnaw xex ñu tere ko mom la suñu mbokk européen di def legi ci cigarette kon ñom dégg nañu ayé ci wet gog Seydina Cheikh li la li la sampe yoon bi lool motax mu mën ci caa légiférer fa mu dajé ayé bi Ahmed wax legi ci suuratul aaraaf bu ma jumul mooy juróom-ñaareelu saar ba jógee fatiha jëm naas ci aaya ñaar fukk ak juróom téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar yàlla di wax allazina ñi nga xamante ni yattabiuuna arrasula annabiya al ummi gis nga ñett yi bu ko alquran tuddee kenn lu kott ko a wax amul confusion yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam القران واخنا رسول لو مات جوم فك يون واخنا نبي لو مات نياف فك يون امي واخنا كو لو مات فين خينا جوم نيات يون بو بوله سينغولير بي اكبيريال وايي كومبينيزون رسول النبي الامي نيار يون نيو تي القران تا تي نيار اي يي تغالو لي بي يالا واخ الذين يجدون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه عندهم مكتوبا ko tax di wax ahlul kitab ko tax di wax lu tax fi tawrat wal injil téere yeb dugul na ba ci suxufil ula dugul kon ken amul lay foofu la Seydina Cheikh tibbee waye lu yàlla wax ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar wa yuhallilu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'isa wa yad'u anhum ithrahum wal aghlal allati kanat alayhim bu teg fa alladina amanu kooku mooy aya téeméer ak juróom fuk ak juróom-ñaar ba ca topp yonent bee wax ya ayuha alladina amanu inni rasulullahi ilaykum jamian alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihi nnabiyi l ummi deugal deugal ar rasul an l ummi ba ñu waxon fële kon képp koo xamante ni dugg nga ci club d'élite boobu nga xamante ni mooy wal takun minkum ummatun ca 104 yaa ngi fekki élite bu jiitu woon boobu mooy verset 110 bi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi lu tax ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkar ba tey donc boo ko toppee récurrence bi mooy li nga xamante ni digle lu baax di tere lu bon mais nag anticipation ba ci daganal la li teey pour la li bon motax Cheikh pour la première fois mu légiféré ci wax nak nan du avons wala du hadis wala du farata wala du sunna li suma mbokk wax léegi nañu nafarat sen indi siratal mustaqim ta nous avons la nous suma mbokk Cheikh Ahmed Tijani expliquer daayira am ak bépp xeet bu mel ni moom mu tudd cofeel boobu maa ngi raf ba gisuma mbokk yi jël ala xablal mawaddati ba ca nuun yëg maam Maodo waaye way leen ala xablal mawaddati jaddidiha fa fi taat fa fi tajdid ixyaaul uyuuni ah bàyyi kon ma continue waaw ala xablal mawaddati loolu la wax ndax ndax li tax mooy da lay élite boobu dafay créer loo xamante ni te Serigne Abdou wane na ko ba pare ci li mu recevoir ñi dafay créer benn dynamique boo xam ni day dalal xelu ki bëgg autorité mën a dimbali xeet mu wax ni école Maam Maodo ci ñett yooyu rek la tegu benn bi mooy sagesse beneen bi mooy xam-xam beneen bi mooy développement waaw fan la sagesse ak savoir ak développement daje تنيان امام ابراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتي كوكو موي سافوا بو تيغو تي هيريتاج دونك امنا فوندامون ويعلمهم الكتاب والحكمه وعندي سافوار بو خامنتيني دا فا امول كونفينمون سباسيو تمبوريل te kooku mooy école Maam Maodo alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin usluha thabitun wa far'uha fi samaai tu'ti uklaha kulla xiinin mooy du fraise ñu ne la printemps rek lay am wala du cerise ñu ne la été rek lay am kulla xiinin c'est un fruit multisaison boo koy Maam Maodo te espace boo dem la wax de far'uha fi sama nga dem Australie fekk fa njàngale nga dem Thaïlande fekk fa njàngale nga dem Kazakhstan fekk fa njàngale nga ñëw fii ci Gorée lii cosaan la fii ci dëkk bi am na ñoo xamante ni ñu ngi koy fàttali léegi moo tax ma gisee Augustin Senghor léegi mu nekkoon retrouvailles yu émotionnel man ak moom parce que doon nañ fi ñëw yaa vingt cinq ans samedi bu nekk ñu jël chaloupe jóge Dakar ñëw fii ñun ñëw fi sampoon daayira Moustarchidine bi nekkoon fii man ak mbokk yii fi toog Mouhamad Gaye ngi nii may gis seede la ci Mansour ak Pape Khalifa Ndiaye ñii seede la ci samedi bi buñ masaan ñëw Augustin li muy nekk nekk chrétien nee naa leen ni ma xam ci moom mooy nit ku yiw la xam naa famille am bu baax dañ daan footballandoo fii dimanche rek def nañ ko fa man ak moom mais buñ daan xadara buñ daan buñ daan taysir daf daan ñëw toog bu dimanche ñu dajewaat football waxtaan bokk suñu pavillon H sa université li laa ko mës a xamal nit ku yiw la waa Gorée am ngeen chance am ngeen maire bu baax ñoo bokk diine diine yonent yàlla Isa la nekk ñu nekk diine yonent yàlla Muhammad nan laa wax léegi alladina yazlimuhum maktubun indahum fi tawrati wal injili moo boole yëpp donc lii cosaan la fi mais xale yi aussi ñoom Pape Khalifa nañ leen jàppale ñu ngi def liggéey bu rafet bëggoon nañu lool moo taxoon ñu bëggoon Serigne Abdou ñëw tey parce que bu ñëwoon ñu bëggoon mu teg ñu ci orbite boo xamante ni insha allahu dootul wàcc yoon mais yéeneen xëy na bu déwénee jàmm insha allah dina ñëw yàlla na yàlla motti waaw bis jot na man dama xamul ndax bu ñu jullee timis ba pare dañuy ñëwaat wala bu ñu jullee timis ba pare dañuy wasifa maa ngi doon déglu organisateur yi ñu wax waaye ma àggale sagesse savoir développement rabbana wa asihim rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim sagesse baa ngoog wa yuallimul kitaab wal hikma sagesse savoir bu amul confinement spatio temporel loolu loolu la wax ni moom la ñu bëgg liggéey ci njaboot yi bu ñu ko defee bépp xeetu tayibaat dana jàppani bu ñu ko defee bépp xeetu yiw dana jàppani lépp loo xamante ni day del xeet delloo ginnaaw nation te ñu am ci taar yu bari ñun fii ci suñu réew te mag ñi def ci lu nekk te maam Maodo defoon conclusion bu réy boobu ni bu yàgg mukk ba diina not fi aada aada rek mooy daan ni diine ci réew mi loolu moo tax ñu sonn loolu moo tax ba tey ñuy continuer encore di indi jangale mag ni parce que même bo demé ci suñu mbokk suñu mam suñu kër mam borom touba ñoom wuñu ci cigarette da fi croyance populaire ñepp dégg nañ ni Serigne Fall bi waji ñëwé di balat laaj ci cigarette dafa araam ak araamul daf koy yaa ngi teg benn mu ne ko mu ne ko taalal waji ji taal mu ne ko jëfandikoo ko jëfandikoo ko waji di tok di tok di tok ba mu des ne muy tek mu ne ko ko dina mu ne ko ah kon daf may lak mu ne ko mu ngoog waaw ko bàyyiwul rek mu lak kon kër yëpp kër yëpp amul benn këru diiné amul benn nitu yàlla ci Ahmed Rifaay yi la jëkke woon jaar na ci ñeneen ba ci Seydina Cheikh mi ci légiféré pour dimbali xel amul kenn ku ci d'accord balaa may jeexal nag ngeen may ma ma nuyu sama benn mbokk boo xamante ni moom tam na ma jógee ba Genève Adja Caroline Ndiaye ñu bokk aussi xadara tijaan yi bu Genève mu nekk ci li ca yëngu-yëngu bu rëy wax dëgg yàlla mu jaral ko aussi moom tam mu dagg paas ñëw fekkee jotaay bi mu ngi ci biir mbooloo mi toog xaw ma fan la toogee xam naa ni nit ku humble la aussi mais ma ne woon aussi naa ko jotal nuyu te itam liy seede bu baax la bu demee Genève xam naa man ak moom dinañ am lu ñu nettali suñu mbokk xajara tijaan yi de Genève maa ngi nuyu yeesal sama cofeel ci ñëpp ala hablal mawaddati di kontaan lool ci cosaan bu ñu dekkalaat fii vingt cinq ans wala vingt six ans après tey ñaan yàlla at bu nekk yàlla nañu ko yàlla mënloo te lii di màgg di law di jariñ xeet bi ba Sénégal tegu ci yoon boo xamante ni yoon bi ko mag ñi bëggaloon la te bañ a tegu ci yoon bi ko impérialiste yi bëggal السلام عليكم